Abdul Xaadir Ñang mu présenté ñu mbokkam bi nga xam ni moom moo feebar waaye mu wax ñu itam fépp fi nga xam ni nii jaar na fi ci feebar bi lépp lum fi def ba xëy na suñu borom indi li nga xam ne ni moom mooy xëy na télé bu mu bëgg ko gaaral mbokk yi ngir lépp luñ si am ñu mën ko si def. kii di Ndiogou Niang nag suñu waajur la ndax wax dëgg yàlla ñin la ko yàlla dénk moo tax lépp luñ ci man rek def nañ ko ba yàlla. dogal fi suñ doole yem ndax mbir mi dañ ci am ay jéego yoo xam ne dox nañ ko si ndax moom mii rek njëkk nañoo jaay benn terrain boo xam ne six cent mille dañ ko jaayee ñu def ko si loolu taxut ñu amaat benn terrain boo xam ne jaay nañ ko deux millions ñu defaat ko si ba loolu tamit loolu taxut ñi gis euh, tan ba léegi. waaw li ñuy docteur yi wax nag feebar bi li ñuy docteur yi wax mooy ne. def nañ lu mat euh, ñetti rajo ak euh, ñaari écho li ñuy docteur yi wax nga xam ne si lañ mën a sukkandiku bi si njëkk nee nañ ñi siddi si yàqu ndigg bi moo képp siddit bi loolu la ñuy docteur yi wax beneen bi nee nañ ñi yàqu mbagg bi dafa jeex dafa am problème jeex moo tax loxo ndeyjoor mënu ci dara léegi nag bañ toogee waxtaan mu ne ma loolu mant su ngeen bëggee paa bi nekkaat daal il faut ñu opéré ko ci laa ne ko bon léegi da nga may waxal somme opération bi mu tolloog ci deux millions quatre cent quarante cinq mille mu ngi nii mooy feuille bi ñu yor nii moo mooy somme bi mu tolloog deux millions quatre cent quarante cinq mille waaw def nañ ci xaalis bu bëree bëri bëri ndax liñ ci def rek fi mu toll nii ëpp na trois millions ay quatre cent yooyu. mbokk jullit yi ñu ngi leen di ñaanaat une fois ñu dimbali mbokk mi nga xam ne moom mooy Ndiouga Niang ñu defal ko opération ndax opération bi kat moom mooy tax xëy na mu delluwaat ci wérgu yaramam moom nag la mu mënoon yëpp def na ko mu ngi koy wax léegi dépensé nañ si lu mat lu ëpp trois millions léegi jamono ji opération bi mu ngi toll devis estimatif bi mu ngi toll si deux millions quatre cent quarante cinq mille francs kon ñu ngi leen koy gaaral mbokk yi di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfeex kon ñu ngi leen di jox numéro bi li nga xam ne am na Wave am na Orange Money am na lépp li nga xam ni moom mooy plateforme envoyé muy 77 544 38 80 77 544 38 80 ñu ngi leen di wax fa jazakumullahu xayran wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi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 waa itam di ko ñaan mu julli si yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ko topp seen yoon ba bis ginnaaw loolu ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax jàkkaarloowaat ak yéen war leen indil suñuy jataay yi nga xam ne euh, saa su nekk euh, dañ koy doxal fii nga xam ne ci biir faaf mooy biir Fafa TV comme ni ngeen ko xamee suñu jotaayu tey bi ñu ngi siy ànd ak ki nga xam ne moom mooy al imam Ibrahim Cissé nga xam ni moom mooy mudiru Al Falah pour la culture et l'éducation islamique bi nga xam ne moom moo féetewoo fii ci Kaolack moom dafa defoon benn mudakira buñ ko mënee wax noonu wala benn étude boo xam ne mu ngi ko tuddee li ñuy wax al waqful islami wa ahmiyatuhu fil mujtamaa mooy li nga xam ne moom mooy le waqf en islam importance bi nga xam ni moom la am si biir société xam naa nag du ñàkk euh, lu mel noonu xëy na duñ ko mën a def si benn jataay waaye jataayu tey bi incha allah dafay nekk tàmbali nga eh, xam ni incha allah suñu yeneen jataay buñ ko yàlla defalee ñu eggaliwaat ba mbir mi jeex xam naa balaa loolu incha allah dañuy jox ki nga xam ni moom mooy mudir mu dugg si biir jataay bi mu nuyoo ñu soog a tàmbali suñu liggéey al mudir bismillah tafaddal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man Euh, mbokk yi ñuy seetaan ci Fafa TV muy équipe bi nga xamee ne ràññe nañ ko miñ nañ ko ci réew mi yëpp ak réew mbokk yi ñuy seetaan foofu moo xam góor wala jigéen mag wala ndaw ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi gërëm di leen sant di ñaan yàlla liggéey bi ñuy dugg nii yàlla yombal ko te defal ñu ci tawfiq nangu ko itam def ci barke te defal ci njëriñ xeetu lislaam defal ci njëriñ jàmm ñëpp sax laay kon loolu la ñuy ubbee ko. macha allah jazakumullahu xayran al imaam al imaam comme niñ ko waxee léegi def nga benn étude boo xam ne yaa ngi ko tuddee li nga xam ne moom mooy waqf naka la ka lislaam gisee waaye itam lan mooy njëriñam lan mooy importance am si biir société mu mel ni loolu nga xam ne mooy waqf ñu bari xëy na euh, xëy na dañ koy dégg nii rek mais est-ce que xam nañ dëgg dëgg dëgg mooy lan ak lan mooy njëriñam loolu moo waral moo waral suñu jotaay bi xam naa suñu jotaay bi li njëkk li ñuy def mooy xëy na yem ci partie bi nga xam ni moom mooy njëkk nga xam ne am na tomb yu bari lim nañ si lu dinañ si lim lu mat ñeenti tomb euh, bi si njëkk mooy xamle lan mooy waqf itam lan mooy tamit xëy na attey fa ci lislaam waaye itam pour ñu mën a wax ni lii waqf la yan ponk mooy daje pour ñu pour ñu mën ko wax xam naa li njëkk rek question bi njëkk biñ lay laaj rek mooy al imam mooy buñ ne waqf maanaam naka lay tekki naka lañ mën a définir loolu nga xam ni moom mooy waqf <coughs> alhamdulilah euh, comme ni nga ko waxee euh, tomb bi waxtaan wi mu ngi tënku ci li nga wax noonu al waqfu islami wa ahamiyatuhu fil mujtama maanaa waqfu bi nga xamee ne dafa tënku ci lislaam ci ay norme l'islam fu boobu ak importance bi mu amal société bi loolu moom lañu ñu bëgg a waxtaanee waxtaan woowu nag ñu ngi ko tënk ci ñetti tomb yu mag bu neexee tuddee ko mabxas fekkee arabisan nga bu neexee tuddee ko chapitre ñetti tomb yu mag yi bu fekkee francisan nga ñetti tomb yu mag la daal tomb bu ne am na ay doom doom bu ne. dafa ay doom. ay doom yu ne ci ronam. macha allah uh-huh. doom bu mag bi mooy maanaa alwaqfu taarifuhu uh, mashruiyatuhu xikmatuhu shurutuhu. macha allah maanaa waqfu ci boppam dégg nga uh, lan mooy waqf muy définition. Uh-huh. Uh, waqf moomu. fan la basé wu ci lislaam fan la ko lislaam yoonale lan mooy tegtal yi waqf ci alquran ak sunna waqf moomu aussi lan mooy xikmaam lan mooy njariñam lan mooy njariñam lu ko tax a jóg waqf moomu aussi yan ñooy chartam te ci biir ponk yaa ngi ci biir. yan ñooy ponkam. donc loolu mooy tomb bu njëkk bu mag bu njëkk bi. macha ci ron tomb boobu boo demee. Mhm. comme ni ma la ko ni ma ko junjee léegi. macha allah tomb boobu mën nañu wax ne am na lu war a mat juróom-ñetti doom yu ne ci ronam. macha allah wala neexee nga juróom-ñetti doom wala juróom-ñetti rak. rak macha allah ñu ngi ñu ngi ci ronam. macha allah waaw bu dee tubaab mën nañu wax juróom-ñetti section wala ay. sous section waaw sous section sous section. mu ngi noonu waaw. Mhm. am na lu ngeen wax petit a <laughs> petit b <laughs> a xam <laughs> eh, kon uh-huh. loolu mooy tomb bu njëkk bi incha allah bu ko defee ñu dem ci ñaareelu tomb bi incha allah ñaareelu tomb bi moo di ci tomb bu mag bi uh-huh. maanaam jeexitu waqfu moomu ci société bi société ay jeexit ay impact yi nga xamee ne daf koy def ci biir société bi moom waqfu uh-huh. donc day wane ne fu lu jara a bàyyi xel la. am solo la parce que société bee ko tax a jóg. tomb boobu moom itam. Mhm. boo ko xoolee da nga fa fekk juróom benni tomb yu ndaw yu nekk ci ronam. waaw ñu nga fa juróom benn tomb yu ndaw ñu nga fa ay doom wala ay rak. ñeenteelu tomb bu mag bi mooy mushkilaatul waqf. maanaa problème yi ci Sénégal nag muskilaat waqf fi Sénégal problématique mhm. yii fu am ci suñu réew ñun mhm. foofu aussi mhm. boo demee am na fa juróom-ñetti euh, tomb ci ronam macha allah lii daal mooy tënku wax ji macha allah waaw léegi kon bu demee ci tomb bu njëkk bi njëkk bi mooy waqfu lan mooy waqfu lan mooy ay tegtalam ci alquran ak sunna lan moo ko tax a yan ñooy ay ponkam macha allah yan ñooy ay chartam mhm. kon d'abord li ñuy njëkk def mooy xam le lan mooy waqfu mu ngi noonu waqfu nag benn terme la boo xam ne ci terme islamique la mun nañ ko wax mhm. te lépp lu ci lislaam mhm. boo ci boo ci waxtaan la nga war a njëkk a def te loolu du lislam rek sax bépp mm-hmm. tomb nit di waxtaanee war na xam le tomb ba ba ñu xam ko mu mm-hmm. doog a dem macha allah euh, borom xam-xam yi dañuy wax ne euh, alxukmu ala cheyi mm-hmm. juzun an tasa tasawurihi mbir pour nga àtte ko day laaj nga am ci idée xam mbir ma lan la boo defee ci ngay mën a wax lii mooy mbir mi baax na baaxul am na njëriñ amul njariñ moo tax kon li ñuy njëkkee mooy xamle waaye nag ci lislaam itam bu ñuy xamle benn terme ci lislaam mhm. euh, dañ koy xamle ñaari xamle. Mhm. xamle boo xam ne dañ ko tuddee taarif lugawi baat bi ci boppam lan lay tekk ci wet làkku arab parce que arab làkku arab dafa riche riche boo xam ne mhm. benn baat bi mën nañ ko jëfan mën na tekki ay mbir yu bari nañ ci gis exemple léegi mu ngi aju ci baat bi la mu aju wala la ca topp mu taallaq arab di ko wax mata mu taallaq maanaam baat bi boo ko waxee la ca topp mhm. mën na orienté définition bi définition macha mhm. la ca topp moo koy moo koy moo moo koy moo lay wax lii la lii la tekki benn baat rek balaa ngay mën a wax ne baat bi lii la tekki da nga xam la ca topp. la ca topp ci arab waaw. Mhm. Euh, xaw ma nag yeneen langue yéen français ah, sax xaw ma noonu dëgg la mu ngoog <laughs> arab macha allah nekk na langue bu riche non bu yéeme sax macha waaw dafa yéeme dañ ci gis léegi exemple effectivement moo tax nag partie définition bi mhm. partie bii nii mhm. moom mën naa wax ne warsagu ñi jàng arab la ñi jàngul arab nañ nañ ma jéggal <laughs> macha allah waaw <laughs> eh, baatu waqfu mhm. docteur waqfu baat bi ci boppam ci làkku arab masdar la masdar waaw masdar la bu jógee ci fi'l bu ñuy wax waqafa maanaam waqfu ci boppam mu ngi dérivation am fi mu fi mu jógee mustaqam mhm. mooy waqafa waqafa la jógee ko waqafa yaqifu wuqufan waqfan gis nga waqfu ba baat ba yegsi na gis nga ko uh-huh. waqafa yaqifu wuqufan waqfan waqfoo ngoog waqfu moomu nag comme ni ma ko waxee ci làkku arab uh-huh. la muy firi mu ngi la koy déterminé mooy la ca topp la ca topp waaw suñ ne diw waqafa fulaanun uh-huh. waqafa fulaanun uh-huh. waqafa mën na tekk ay mbir buñ ne waqafa fulaanun min juluusin wala nga ne waqafa rek noppi mën na tekki koo xam ne dafa toogoon jog taxaw toog jóg taxaw jóg taxaw. loolu day tekki waqafa. macha nga. Mhm. waaw. wala nga ne waqafa. ay sakana baadal mashi. maanaam mu ngi doon dox. Mhm. def ay jéego di dem. Mhm. ba mu yàgg mu taxaw arrêté. mu arrêté waqafa kooku day tekki ba tey ci taxaw ci ci waqafa la la ci maanaa yi waqafa lay bokk. lay bokk ku doon dox ba mu yàgg mu taxaw. mu taxaw waqafa ngay wax. ku toogoon ba mu yàgg mu jóg taxaw. ba tey waqafa ngay wax. dégg nga. macha allah. arab bu ne waqafa ala shay li lay wane ne toujours maanaam li koy déterminer rek mooy la ca topp. waqafa ala shay mhm. <coughs> waqafa ala shay mooy aayanahu jàkkaarloo naag moom boo nee waqafa teg ca ala shay mooy jàkkaarloo naag mbir ma maa ko gis waqaftu alayhi bu mooy maa ci teg sama bët mhm. dégg nga euh, waqafa fil loolu ci borom xam-xam yi lay dellu mel ni mufti mel ni docteur Lo par exemple. incha allah waqafa docteur Lo fi hadhihi masala buñ ko waxee. te boo ma laajoon benn masala boo xam ne man yëg naa ne docteur moom masala bii daal da cee taxaw joxewu ci benn position. Uh-huh. dama la naan waqafa docteur Ahmad Ahmad Lo fi hadhihi al masala masala bi de docteur Lo moom da cee taxaw. cee taxaw. mooy joxewu ci position. d'accord waaw. Mhm. gis nga waqafa fil masala nga ni muy changé. ni muy allah dégg nga. Mhm. Euh, waqafa mu ngi ciy sikki sàkka. Mhm. wa waqafa alal kalima. waqafa alal kalima. arab waxee dugg na ci ilmu tajwid. incha allah li may wax. allah waaw am la. nataqa ay nataqa biha musakkanata al axir qaatian laha amma baadaha maana waqafa ala al kalima bu ko a waxee mooy yaa ngi doon liir benn texte mun na nekk alquran mu am baat baat yoo xam ne xam nga booy jàng alquran dafa am baat yoo xam ne boo ci yeggee dang koy da ci ciy taxaw doo continuer ndax dafa ci ci tajwid dafa am lu ñuy wax waqfu al al waqfu wal wasl waqfu mooy nga egg ci baat bi taxaw fa nooyi déparaat loolu mooy waqfu mooy waqf wasl nag mooy nga ñëw rek maasale doo taxaw doo nooyi continuer mhm. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawm da ngaa maasale lool mooy waslu mais waqfu nag ci fii buñ nee waqfa alal alal kalima bi mhm. nee na mooy baat bi nga baat bi nga taxawee da koy sukkoon doo ko maas mhm. tey tam doo ko jokkale ak la ca topp ci misaal buñ jël woon fatiha rek texte bi bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin gis nga boo demee dangay ngay fekk ñu maas ko mais yow booy jàng di di waqfu doo maas alamin da koy sukkoon arrahmani rrahim gis nga ko rahim googu da nga koy sukkoon dégg nga maliki yawmiddin wala nga ne maliki yawmiddin loolu waqfu foofu li muy tekki ci ilmu tajwid mooy bi nga baat bi bi nga ci yeggee da nga koo sukkoon itam jokkale woo ko ak la ca topp loolu mooy waqfu ci ilmu tajwid kon pour ba léegi rek pour won la baatu waqfu li koy déterminer toujours mooy la ca topp mooy la ca topp macha allah <laughs> waaw buñ ne waqafa alxaaju bi arafat waqafa alxaaju bi arafat mooy ujjaaj bi taxaw na arafa xam nga boobu change ba tey maa maanaa baa ngi changé effectivement taxaw na arafa ay mooy shahida waqta mooy fekkee na waxtu arafa fekkee na ko shahida wa waqafa bi arafa mooy shahida waqta fekkee na waxtu wa tekkiwul na sax dafa dem rek na jodd taxaw rek ci suba gi ba ngoon jot déedéet <laughs> mooy fekkee nga fa teew nga fa taxawaay arafa boo koy doog te xamoo dara ci mbir danga nga ne. boo demee rek da fay tax da ngay taxaw. Mm-hmm. déedéet da nga toog di nga tëdd di nga taxaw di nga dox. Mm-hmm. di nga lekk di nga naan. incha allah waaw mais taxawaay bi la ñuy la ñuy lañ koy tuddee. Mm-hmm. kon waqafa bi ara waqafa alxajju bi arafa loola tek mooy shahida waqta fekkee na ko. buñ ne waqafa fulaanun ala ma inda fulaanin. ah la mu tekki ci làkku araab mooy fahimahu wa tabayyanahu waqafa fulaanun ala ma inda fulaanin mooy xam na comprendre na diw li bëgg a wax wala position am waaw wa waqafa almaashiya wal jaalisa waqfan jaalahu yaqifu kooku itam des na ko wax bu ne waqafa almaashiya fekk nga ku doon dox nga taxawloo ko waqafa aljaalisa fekk nga ku toogoon nga jogloo ko mu toog gis nga ko. waqafa addabata wa fulanan an cheyi waqafa addabata wa fulanan an cheyi bu ko arab waxee mooy tere na koy tere na ko ay manaahu aw manaaha bu fekkee ca dabba ja ngay nga dellu anhu mooy tere na ko waaw waqafa fulanan an il amri alal amri bu ko arab waxee waqafa fulanan alal amri aw waqaftu fulanan alal amri ay na ko mbir mi na ko li xew wa waqafa al amra ala xuduri fulaanin bu ko arab waxee mooy allaqa al xukma fiihi bi xudurihi maanaa tënk na ko ci teewuk diw maanaa daal lim bëgg a wax du ko dax du ko wax mukk te diw teewul gis nga waqafa gis nga fi mu ñëw tey mhm. tënk na wax ja ci teewuk diw waaw mooy waqafa al amra ala xuduri fulaanin ay allaqa al xukma fihi bi xudurihi wa waqafa daara ñu ngi jege si nag ci li ñu tax a jóg mu ngi ñëw ñu ngi ñëw ci maanaa bi nga xamee ne <laughs> daanaka foofu lañ jëm si macha allah waaw wa waqafa daara wa naxwaha xabasaha fi sabilillah wa yuqaalu waqafaha ala fulaanin wa lahu maanaa buñ ne waqafa daara dégg nga fi sabilillah waqafa daara fi sabilillah mooy jël na kër gi def ko waqfu fi sabilillah mm-hmm. maanaam kër gi daal tabax na ko mm-hmm. ba mu pare jënd na terrain bi tabax ko mm-hmm. mu ne daal koo xam ne daal bëgg nga ñëw dëkk def naa ko fi sabilillah fee feesul daal ku ñëw am nga fi place waaw donc boobu gis nga waqfu. Hmm. da ngay gis ne mu ngi doog a ñëw mu ngi jublu si. jublu ci li nga xamee ne ñun moo ñu tax a jóg. effectivement waaw parce que jël nga kër. Hmm. def ko waqfu fi sabilillah jël nga oto def ko waqfu fi sabilillah hmm. jël nga teen def ko waqfu fi sabilillah waaw. imaam ndax loolu mën nañ si déggee ñu ne par exemple man kat yëkkati naa dix mille wala cent mille en tout cas lu ma am ma ne man kat jël naa ko jëbal ko waa Fafa TV def ko fi sabilillah Mumtaz dinaa ci ñëw. macha allah man dafa bokk ci <laughs> waxtaan wax waqf bu ma koy waxtu. Mhm. bu ma koy koy def. macha allah euh, établissement wala institution. Mhm. bi ma koy defee. Mhm. balaa may jël dara exemple. dama koy jël ci ca fa ma nekk. ca fa nga nekk macha allah. tey comme Fafa TV ñoo ñoo ñoo ñoo waxtaan bi. macha allah incha uh-huh. bu may jël misaal. dama koy mën naa ko njëkk a jël ci Fafa TV. alhamdulilah kon ah, ci wax ci wax ah, waaw incha allah. Euh, kon. Mhm. loolu ne naa ci ñëw. dinañ si ñëw incha allah bu ñu demee ba ci li nga xamee ne mooy taariful istilah. ñaareelu xaaju definition bi te mooy définition conventionnelle. macha allah comme ni ngeen ko xamee. incha allah ñun ci arab ñaari taarif mooy am. bu ñuy taarif dara comme ni ma ko waxee léegi dañ koy taarif ci wetu luga. luga luga étymologique. effectivement étymologique dañ koy topp comme ni ma ni ma ni may nii. topp boo wax la baat bi yëpp mm-hmm. ne baat bi dina tekk lii yëpp baat bi dina ko tekk bu ñu paree ci lool nag doog a dem nag ñun ci baat bi fi ñu koy jëfandikoo foofu nag lan la fi tekk macha allah waaw mooy tact waaw xam le conventionnel conventionnel bi moom moom mooy conventionnel tout à fait mu ngi noonu kon euh, docteur Bamba mm-hmm. ci gàttal macha allah lii lañ mën a wax ci li nga xamee ne mooy définition bi bi aju ci làkku arab làkku arab macha allah étymologique bi macha allah euh, léegi nag xaaju ñaareel bi kon mooy bu ñu demee ci taarif wala définition bi nga xamee ne nag mooy al istilaahi ñu koy wax ci arab al istilaahi mooy conventionnel bi nga xamee ñun suñu waxtaanu tey wii ci waqfu waqfu lan la fi tekki fi tekki macha lan la ci borom xam-xam yi jublu boo demee ci téere yi borom xam-xam yi ñu bind waqfu mhm. waqfu foofu lan la fa tekk macha allah loolu mooy taarif bi ñu ñëw nii boo demee <clears throat> pour xamle waqfu boobu mhm. euh, borom xam-xam yi ngir yi dañ ciy mhm. wutee ci taarifaat yi ci définition yi donte nag wante wuñ définition yi sorewante wuñ waaw euh, moo tax ñun dañoo tànn benn définition benn xamle benn taarif boo xam ne bu gàtt la bu neex a mokkal bu neex a ko te itam tënk na daal li ñu li ñu soxla lépp tënk na ko muy taarif boo xam ne euh, ngirum imam ahmad euh, ibnu hambal ak ngirum imam shafii ñoom ni ñu xamlee waqfu boobu laa tànn donte nag waa yeneen ngir yi buñ ma mere ndax mbir mi ajuwul ci bii ma gën a jege Sénégal laa dëkk kon la imam ngirum imam Malik la mu wax loolu laay déedéet pas obligatoire ah. du noonu fii xam-xam rek la d'accord fii ñun man li tax ma tànn bi booy bii dafa gën a gàtt gën a itam leer ci man leer macha na yeneen ya la wundoon moom yóbbuwaale na ko boobu nag ci arab buñ koy taarif dañ ko taarif ci ñaari terme yu gàtt macha allah taxbiisul asli wa tasbilul manfaa jeex na xam nga loolu gàtt na trop taxbiisul asli wa tasbilul manfaa taxbiisul asli buñ ko waxee mooy ñu jël cosaanu mbir mi mbir miñ bëgg a def waqfu ñu jël cosaan la tëj ko tëj ko tëj ko mooy limité ko limité ko bañ ko ubbi rek ñëpp dugg déedéet te lu mooy taxbisul asli cosaan la dañ koy jël tëj ko am fuñ ko tëj buñ ko tëjee ba pare nag ah njëriñ la moom ñu ubbi ko macha njëriñ la dañ koy ubbi man boo ci doon joxe exemple <coughs> jàkka jàkka ah boo tabaxee jàkka ñu xamaale ne jàkk yëpp waqfu la loolu ñu xamaale ko. macha allah jàkk ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp. jàkk yëpp waqfu la. Mm. képp ku tabax jàkka rek ne nit ñi ubbi naa jàkk ji ku bëgg a ñëw dugg fu nga sa jàkk. waqfu nga ko. Mm-hmm. tabaxal naa ko waa koñ bi. macha wala tabaxal naa ko waa dëkk bi. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. xam nga tënk nañ ko. wala nga ne gas naa teen bi pour waa dëkk bi waa village bi wala waa koñ bi. wala gas naa teen bi pour daara ji. xam nga tënk nga ko. tënk nañ ko uh-huh. tënk nañ ko foofu. Uh-huh. mu ngoog wa tasbilul manfaa njëriñ li nag moom danga koy da koy ubbi. su ko defee rek koñ bi ku fi nekk ku bëgg a julli bu fekkee jàkk la mu ñëw julli. Uh-huh. su fekkee itam daara ji ku bëgg a jàng jàng wala nga bëgg a jàngloo sa doom nga dugal sa doom fekkee ab teen la noonu la fekkee suñu waxtaan wi par exemple. kan laa ko jagale est-ce que dama ko ubbi rek ku neex jël dafa am ñu ma ko jagale. macha allah Fafa TV. effectivement Fafa TV ñoom la ñoom ñoom ci ñoom laa jagale waxtaan wi. macha allah waaye njëriñ li est-ce que Fafa TV rek ñoo ñoo ko moom. donc waxta waxtaan wi ci boppam waqfu la. Mhm. Fafa TV lañ ko jox. macha allah ñoo koy tasaare ji ñoo koy gérer ji ci internet bi. macha allah waaye njëriñ li képp ku bëgg a rek. fii fii ba mu ngi ci internet bi. boo ñëwee man nga ci jariñ donc taxbisul asli taxbisul asli wa tasbilul manfaa loolu mooy définition bi bépp njariñ boo xam ne jël nga ko nga jël cosaan ba ne tënk naa ko ci nangam mhm. wala ci gox sàngam pour ñooñu gere ko loolu rek la tënk bi pour loolu la par exemple boo tabaxoon jàkka mhm. ne jàkka ji dénk naa ko mu uma alfalaax pour mu gérer ko xam nga tënk nga ko. tënk nañ gestion bi ku ko ku ko yore. ku koy utal imam. Mhm. ah. alfalaax orientation ya muy ya ak xutba yaag yooyu. Mhm. ku koy gérer. lépp mouvement alfalaax. Mhm. waaye njëriñ la est que falaax rek ma ci ñoo ciy jëriñu. falaax rek du ci jëriñu. macha allah xutba yi ñu fay def ak darsu yi ñu fay jàngaleeg yooyu yëpp. ñëpp ko moom. kooku taxbisul asli wa tasbilul man faala mu ngi noonu tëj nga ko mais dégg nga euh, ubbi nga njariñ li ubbi nga njariñ li mu ngi noonu comme suñu waxtaan wi itam jagale nañ ko Fafa TV mais njariñ li ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk macha allah macha allah donc mhm. tasbilul euh, taxbisul asli wa tasbilul manfaa manfaa waaw teen yi ñuy gas ci dëkk yi jagale ko waa dëkk bi jëriñ la école islam yi ñuy tabax jagale ko ab goj gox wala ab koñ wala jox ko benn association ne ko géreel ma école bi parce que école bu ne il faut am ku ko gere doo tabax école rek sànni ko noonu donc koy dénk ko wóolu mu géreel la ko waaye njëriñ la nag doom doomu jullit yëpp ko bokk waaw daara noonu macha allah kon ci tënk docteur Bamba euh, loolu mooy définition bi li ñu mën a wax ci définition bi ak misaal yi ñu ci joxe pour leeral lan mooy waqf. macha allah bu fekkee leer na baax na lu lu leerul aussi boo amee loo ciy laaj. alhamdulilah ba tey. macha allah al imam wax dëgg yàlla ci li nga xam ni moom nga ñu indil ci waqf naka la ko lislaam tekkee ci langue waaye itam ci istilaax comme ni nga ko waxee. wax dëgg yàlla leer na kon xam naa li li fi ñuy fi ñuy tàbbi mooy lii nga xam ne moom nga ñu définir léegi muy fa maanaam buñ mënee laaj maanaam lan mooy basam lan mooy légitimité maanaam lan mooy attem ci biir l'islam lan nga ñuy wax mu ngoog fu comme niñ ko xamee l'islam moom mhm. lépp luñ ko moomale rek il faut mu am base incha il faut mu am lu koy tegtale ci alquran ak ak ci sunna wala ci alquran wala ci sunna mhm. Euh, bu ñu delloo ci waqfu am na ay texte ñaari ñaari tegtal ñaari façon tegtal am na tegtal yoo xam ne nusus amma lañ koy tuddee ay teg ay ay yax yoo xam ne dafa matale dafa yaatu dafa général waaye waqfu mën na duggaale ci biir am yeneen façon tegtal nag yoo xam ne moom waqfu ci boppam lay lay lay tegtale moom kese waqfu ci boppam mm-hmm. donc dafa am ay texte yoo xam ne yu général la mm-hmm. am texte yoo xam ne généralul mën nañu wax ne waqfu ci boppam moo ko tax a jóg. macha allah bu ñu delloo ci texte yi nga xamee ne dafa matale dafa yaatu. Mhm. général. Mhm. te waqfu duggaale ca. Mhm. mën nañ ca teg mën nañ ca gis. aaya boobu yàlla di wax ci sooratu Ali Imran. lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim. boobu donte yaatu na. mais waqf mu ngi ci biir yàlla nee na du ngeen am ak mbaax lu dul ngeen dépenser ngeen dundale seen alal ah ci li ngeen seen alal ji ngeen bëgg ngeen dund dundale ci ci yoonu yàlla balaa ngeen di am ak mbaax jël leen ci seen alal ji ngeen sopp mhm. moo xam xaalis la moo xam leneen la moo xam ay kër la moo xam ay terrain la ngeen jël ca dépenser ko fi yoonu yàlla mhm. waaw donc xaalis mën na nekk waqf comme ni nga ko waxee mhm. te bu ñu jëloon Fafa TV. Fafa TV par exemple seen matériel yu cher yi ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di liggéeyee. macha allah ah. Mhm. nga xam ne boo demee benn bu ne ay centaine de mille mille lay mille lay jar. macha allah waaw. Mhm. te xëy na di ngeen soxla matériel yoo xam ne nii. Mhm. seen kattan yeggagu ca. dëgg waa yu baax wala ay mbokk yu baax dal di xam loolu wala ñu yëg ko moo xam yéen leen ko yëgal wala yëgalu leen leen ko. ngeen ne ko soxla nañ benn appareil sangam wala ay appareil nangam ak nangam. dégg nga nangam lay jar. mbokk moomu jël aslaf ci xaalitam jox leen ne leen jënd leen ko wala dimbale ko leen ci wala yeneen mbokk dajale seen ab xaalis. jox leen ne leen jënd leen ci seen caméra yu cher yi ngeen di liggéeyee. Mhm. wala jënd leen ci benn ordinateur par exemple. ah wala jënd leen ci oto bu ngeen di déplacé woo. macha allah def leen ko ci seen transport gasoil wala essence bi ngeen di transporter eh, da doon dimbali ko loolu yëpp day dugg ci waqfu bi bu boobaa yéen liggéey bu ngeen liggéey rek kooku dimbale leen ci li ngeen jëndee appareil yi mhm. matériels yi ak kooku dimbale leen ci oto bu ngeen di demee ak dikkee mhm. kooku dimbale leen ci gasoil la mu joxe moo xam lu néew la wala lu bari la mhm. liggéey bu ngeen def bu aju ci lislaam dégg nga ku ci mën a jariñu bu boobaa kooku dugaloon jandaloon leen wala defoon xaalisam ci seen matériel ba wala ci seen transport boobu day am ci tiyaabo ja macha allah lu mu yàgg-yàgg nag day am ci danaa di faral di misaal euh, pour gën a leeral waqfu ak lu dul waqfu ci boppu nit ñi maanaam mille francs boo jëloon benn mille francs tey fekk euh, miskin wala borom kër goo xam ne amut lum ndekkee këram wala amut lum añee wala amut lum reeree nga jël 1000 francs wala 2000 francs jox ko mhm. ne ko dimbale ko ko mu dem jox ko soxna si mhm. soxna si dem marché dugg ñëw ñoom njaboot gi yëpp ñu daal di ci xewlu añ ci mhm. wala ñu reer ci sa 2000 mille boobu boobu yàlla daf la ciy bindal tiyaabo ne leel nga ay miskin Mhm. leer nga famille boo xam ne dañoo new doole mhm. mu bindal la tiyaabo jooju noteel la ko noteel la ko mais tiyaabo jooju noonu mu yem noonu noonu lañ la koy noteel parce que lekk nañ ko mu jeex da nga ci am tiyaabo de mais dañ ko lekk mu jeex ah. <laughs> ëllëg boo bëggaatee tiyaabo deux mille da ngay génneewaat deux mille deux mille joxewaat joxewaat macha allah wala nga génne mille franc joxe ñu bindaleet la beneen mhm. mais deux mille yooyu nga joxoon miskin bi mu jox ko am ñu dem dugg mu dem dugg ci marché ñu togg ci waa kër gi yëpp dal di ci xéwlu macha allah tiyaaba jooju nga ciy am macha allah da koy am mais deux mille boo jëloon beneen deux mille par exemple nga fekk jàkka ju ñuy tabax mana man de bëriwuma doole waaye deux mille yi dugalal leen ma ko ci ci tabaxu jàkk ji macha ah bu jàkka ja pare lépp lu ñu jaamu yàlla ca jàkka jooju fekk jàkka jaa ngi taxaw danañ la ci sedd sa wàll ca tiyaabo ja yow wu tollook deux mille ba nga defoon ca jàkka ja dañu ci fekk jàkka taxaw ku fa julli nga am tiyaabo ca julleem nga ku fa jàng alxuraan nga am tiyaabo ca ku fa def conférence wala mu waaraate fa yow sa deux mille yooyu wàllam day ñëw fekk si la moo xam nag ki joxe woon deux yi mu ngi dund wala dundatul mën naa am sax mu nekk ci biir bàmmeelam waaye lu xew ca jàkka ja ci jaamu yàlla wàllam dana ko fekk ci biir bàmmeelam. macha allah deux xam nga bokkul ak deux mille ya nga xamee ne dañ ko joxe woon ñu def ko dépasse. mais ñaar yëpp baax na nag. Hmm. mais lii mooy différence bi. d'accord mooy différence bokkuñ. donc. Hmm. loolu benn exemple rek. macha allah waaw. Euh, hmm. loolu. Euh, moom la yàlla moo tax ñu ne yàlla aay bi mu wax ne du ngeen am ak mbaax lu dul ngeen jël ci seen alal ji ngeen bëgg dépensé ko ci yoonu yàlla kon loolu dëgg la dëgg la deux mille bi nit ki jëloon jox ko miskin mi mu dundee ko mu ngi ci biir waa en même temps deux mille ba nga jëloon itam ah fekk jàkk ji ñuy tabax wala teen bu ñuy gas ah nga dugal ko ca deux mille boobu itam dugaale na ci biir aaya bi waaw ndax ñaari yëpp dépassé ci yoonu yàlla la donte bële moom tiyaaboom dafay continuer bële tiyaaboom dafay continuer waaw bii nag tiyaaboom dañ koy noté rek mu toog di la xaar euh, kon loolu euh, benn tegtal la beneen tegtal boo delloo ci alquran ba léegi ci suratu baqara ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard yàlla ne ne yéen ñi nga xamee ne gëm ngeen yàlla na ngeen dundle dépensé leen ci way teeyu li ngeen fàggu maanaam alal ju dagan ji ngeen fàggu ak li ma leen génneel ci suuf si mhm. dundle leen ci kon foofu itam dugal na sarax boo xam ne teew mi teew la da koy joxe borom jëriñu ca ñu bindal la tiyaaba ja ñu note ko mu jeex waaye dugal na itam sarax boo xam ne day continuer sadaqa jaariya mu ngi ñëw ni ci xadis bi ci kanam macha allah yóbbuwaale na ko kon yii ñoom mën naa wax ne ay texte lañ yoo xam ne texte général dañoo matale dugal nañ sarax boo xam ne sarax bu boo xam ne borom da koy jëriñoo mu jeex waaye dugal nañ sarax boo xam ne dafay continuer te mooy fu boo xam ne njëriñam dafay continuer waaw dugalaale na ko te kooku mooy fu kon loolu ba tey ay tegtal la ci waqfu waaye bu ñu demee ci tegtal yi nga xamee ne nag moo ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala lenn ci tegtal yooyu am na ci benn xadis boo xam ne moom daanaka mën nañ wax ne moom rek doy na tegtal ci waqfu moom rek doy na xadis ba abu hurayrata mooy ki ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci wax na ida maata al abdun qataa amaluhu illa min thalath sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u la mu ngoog xadis bi kon cheikh al albani rahimahullah wéral na ko ci téere boobu al imam buxaari taalif ñu koy wax al adabul mufrad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki su faatoo lii nag mooy waqf dëgg dëgg dëgg waqf foo gi nii nit ki su faatoo su faatoo dégg jëfam ju baax day arrêté dootul jëf lu baax parce que faatu nit ki fekk yaa ngi dund mën nga def lu baax mais soo xasee faatu jeex na waaw ah te jëf lu baax jëf ju baax ci la tiyaabo di juddoo kon loolu li mu tekk mooy nit ki su fa xasee faatu tiyaaboom arrêté na kon ni ma koy faral di waxee kontu tiyaabo nit ki dafa am kontu tiyaabo koo gis dafa am kontu tiyaabo fekkee def katu lu baax su defee lu baax ñu werseel ko ci kontu tiyaaboom fee mu ngi dund di def lu baax ñu koy werseel ci kontu tiyaaboom mais su fi jogee ko mu faatu kontu tiyaabo dañ koy bloqué tëj ko dara dootu fa dugg jeex na importance su waxtu fii lay waqf fii lay feeñee su xasee faatu jeex na tëj nañ compte ba dara dootu fa dugg bloqué nañ ko la fa nekkoon daal loolu lañ koy fay mhm. lu mu fa dugalul woon avant mu faatu jeex na loolu du ko du ko fayeeku mhm. ba mu des ñetti yëf mhm. ba mu des ñetti yëf yoo xam ne nit ki defoon na ko balaay faatu ñetti yëf yooyu ku ko defoon balaay faatu moom compte tiyaabam kenn du ko tëj day faatu fekk mu nga ca biir bàmmeelam ay ati at compte bi di ubbeeku rek ñu koy versel ci compte am moom faatu na bu jàgg bi mu faatoo léegi kenn xamul kañ la parce que defoon na waqf defoon na ñett yi defoon na ci benn boo xam ne balaay faatu moo tax ñu continuer di ko versel ci compte am a ñëw nii benn ba nee na mooy sadaqa jaariya mooy sarax boo xam ne njëriñam dafay continuer di jëriñ jaam ñi comme ni ma la waxoon léegi nag misaal bi ma la joxoon léegi deux mille bi nga jël jox ko miskin mu lekk ko mu jeex añee ko moom njabootam mu jeex sarax la mais du sarax bu conti njëriñam di continuer parce que ña ko doon lekk lekk nañ ko jeex na bindal nañ la lañ la cee bindal wuutee naag nag sarax bi nga xamee ne daa continuer di jariñ kan ko joxoon bu ngeen enregistré yéen Fafa TV benn émission émission bi ngeen dugal ko ci YouTube wala ngeen dugal ko telegram wala fu ngeen ko mën a dugal ku ko soxla ci àdduna bi moo xam biir Sénégal la moo xam biti Sénégal feek fee ngeen ko dugal noonu mu ngi continuer di exister nit mën na dem ubbi ko jëriñu ci ca lañ ca doon wax feek loola mu ngi am képp ku ci jëriñu rek yéen ñi nga xamee ne yéenay Fafa TV yéen ña taxawee woon loolu da di am seen wàll waaye ku participer woon dimbale leen ba loola mën a amit moom itam day am wàllam feeg nit a ngay jariñu ci waxtaan woowu ngeen dugaloon ci internet bi feeg nit a nga cay jariñu rek ñu di leen versel seen tiyaabo waaye di ci versewaale képp ku participer woon ca liggéey booba moo xam ku sori wala ku jege participer ci alalam wala moom ci boppam moo joxe woon xam-xam ba xam nga bokkuñ bokkuñ kooku saraxa jaar yàlla moo tax man damay damay gis ne euh, waxtaan yi ñuy dugal ci waxtaan waxtaanu lislaam manees na ko tuddee al waqful ilmi al waqful ilmi dana ñëw ci kanam bu neexee yàlla fu ñuy xaajalee impact waqfu incha allah incha allah waqful ilmi maanaam dafa am waqfu mm. xam-xam lii lii ñuy def nii waqfu la ci xam-xam macha allah mais waqfu waqful maal dafa am waqfu xaalis am na mm-hmm. dégg nga waqfu xaalis am na xaalis bi ngay gasee ji teen xaalis bi ngay tabaxee jàkk loolu yëpp ay xeetu waqfu la mais ci xaalis xaalis la xaalis xaalis la laaj même yéen seen seen waqfu Fafa TV bi waqfu xaalis mu ngi ci biir. seen matériel yi xaalis da koy jënd. nit man na leen ci jàppale mu nekk waqfu. comme ni ma ko waxee woon ci gannaaw. donc euh, <coughs> sadaqa jaariya. moo tax man may faral di wax ne sadaqa jaariya la waqfu boog nit ku muus moo koy def mais ku muusul du am xelum def waqfu. parce que nit ku moo xam ne. moom mooy koo xam ne xam na ne moom kat fekk mu ngi dund fii di def lu baax danañ ko dañ ko danañ ko wersel ci compte am ba waaye bis bu mu fi jógee ko mu ne sama compte dañ koy tëj bis moo fi jógee ko jeex na compte ba bloqué nañ ko dootuñ ma fa dugal dara mu ne ah, loolu wóorul xaaral ma seet jëf boo xam ne jëf bu baax lay doon boo xam ne su ma fi jógee ko it dinañ continuer di ma fa wersel tiyaaba ko xam nga ku am intelligence kuy analyse kuy analyser moo koy def mhm. moo tax man damay wax dafaral di wax ne waqfu nit ku muus mooy def waqf. macha allah. Mhm. foofu dinaa fi benn euh, xissa. Mhm. boo xam ne mu ngi ci internet bi. Mhm. benn waay la boo xam ne euh, benn borom kër. dafa dem liggéeyi. marché wala dem na liggéeyi daal. ba mu demee liggéeyi balaay wàcc mu jënd fa deux kilo raisin. ba mu jëndee de kilos raisins yi jox ko borom Jakarta dama koy misaalee noonu rek mel ne ku nekk Kaolack. dëgg la waaw mhm. la rek. mu jënd deux kilos raisin jox ko borom Jakarta ne ko yóbbu ma ko kër ga mu daal waa ji daal di indi kii bi ne ah, sëñ bi kat mu ne eh, kii ba kii bi ngeen ngeen denc ngeen garder ko fii. Mhm. mu daal di indi a ah, dem liggéey ba ba mu wàccee xëy na reer na ba pare ne ah, waaw raisin raisin ji indil indil ma ci raisin ji ma leen joxoon. soxna si ne ko ah, malheureusement raisin ja kat ñun xewlu nañ ko jeex dañ ko lekk fàtte lekk nañ raisin ji mu ne ah, man mi ko jënd ngeen ngeen lekk ko fàtte hmm. mu ne waaw waaw li nga xew de malheureusement lekk nañ ko de hmm. mu ne aha mu analyser gis nga li ma doon wax léegi mu analyser mu ne waaw man dee gu ma ma dee kon luy xew hmm. xaaral ma jog ci sama bopp man balaa ñu may fàtte man ma fàttaliku sama bopp macha allah mu analyser mu dal di dem gis benn courtier ne ko seetal ma terrain bu baax boo xam ne bu nekk ci emplacement bu baax bu bu place bu baax daal boo xam ne mbooloo am na mbooloo kooku dem wutal ko terrain mu dal dem jënd terrain ba ci saasi ne ko utal ma entrepreneur mu utal ko entrepreneur mu ñëw mu ne ko fii daal jàkk laa fi soxla tabaxal ma fii jàkk entrepreneur bi tabaxal ko jàkka ji boo ji pare macha allah mu ne waa bi jàkka jàngoo macha allah def na ko xam nga benn bis nag mu daal di ànd ak soxna si nag ñëw ba ci jàkka ji mu ne ko gis nga jàkka ji mu ne mu ne ko maa ko tabax waa jën terrain bi maa ko tabax ci suma xaalis parce que keroog bi ma leen yónnee raisin ji ba ma wàccee ne leen raisin ji ngeen ne lekk ngeen ko fàtte ngeen ma laa ne xaaral ma jóg ci son bopp man balaa ñu may dee ñu may fàtte man ma fàttaliku sama bopp loolu moo tax ma jënd terrain bi tabax ko pour que ëllëg yéen su ma dee su ngeen ma fàttee it fekk man am na lu ma jiital ci suma macha suma bàmmeel suma compte bàmmeel dinaa am lu ma fi versé même su ma mhm. su ma njaboot fàttee su su ma njaboot fàttee itam fekk man waajaloon naa sama bopp du ma wàññi dara booba mais su ma ji su ma préparé préparé wul suma bopp mhm. jiitaluma dara ci sama bàmmeel loo xam ne su ma dee ñu ma koy wersel su ngeen ma fàttee du baax xam nga kooku il est très intelligent kooku muus na de. trop sax. moo tax may faral di wax toujours ne waqfu ku muus moo koy def. nit ku muus. ku muus macha allah. mooy def waqfu. macha allah. Euh, kon loolu lu jara bàyyi xel. xel la waaw. Mhm. kon. Mhm. nee na sadaqa jaariya sadaqa jaariya moom mooy sarax boo xam ne njariñam dafay continue bépp sarax boo xam ne njariñam day continuer rek jàppal ne waqfu la moo xam nag ban façon fu la moo xam xaalis bu borom génnee la moo xam dégg nga xam-xam bu mu génnee la moo xam téere bu mu taalif téere taalif téere taalif téere dara gënu ko nekk waqf nekk waqfu te gën ko yàgg imaginel am na téere yoo xam ne taalifoon nañ ko fi bu jàgg ay téeméeri téeméeri at mhm. ba léegi yow mi yaa ngi ciy jëriñu man mi maa ngi ciy jëriñu faafa mi mu ngi ciy jëriñu macha allah te suñ jëriñ loolu borom ka ko taalifoon da koy fekk ci biir bàmmeelam imagine laxdar yu rek buñ jëloon laxdar yu macha allah ay centaine at biñ bi ko borom taalifeeg léegi ay quatre cent à peu près cent ans quatre cent ans à peu près Ashmawi Sahihul Bukhari kañ la ko taalifoon mhm. Sahihu Muslim kañ la ko taalifoon ba léegi yaa ngi ciy jariñu maa ngi ciy jëriñu suñu morom di ci jariñu ñaata doomu aadama ci àdduna bi ñooy jariñu ci Sahih Bukhari ak Sahih Muslim sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi Ibnu Maaja ah xoolal loolu hmm. moo tax taalif téere bokk na ci waqfu yi nga xamee ne waqfu yi gën a gën a mën a yàgg gën a mën a yàgg macha allah donc loolu moo tax mu ne sadaqa jaariya sarax boo xam ne njariñam day continuer loolu benn la ci ñaareel ba mooy aw ilmin yuntafau bihi xam-xam boo xam ne dañ koy jëriñoo mooy li ma doon wax léegi rek koo xam ne ba muy faatu borom xam-xam la woon jàngoon na jàngale woon na jàngale woon na lu bari macha allah moo xam alquran la jàngale woon wala xam-xam la jàngale woon gannaaw ba mu faatu xam-xam boobu mu jàngale woon ku ca jëriñu gannaawam ñu wersel ko kontam alquran jooju mu jàngale woon ba muy dund ñam ko jàngaloon feeg ñu ngi jàng alquran di ci jëriñu yàlla di leen ci bindal tiyaabo seen tiyaabo yooyu yëpp dañ koy totaliser mu fekk ko ci bàmmeel parce que moo jàng moo leen jàngaloon imagine loolu aw ilmin yuntafaxu bi imaam buñ la déggee waaw maanaam tey kenn benn sëriñ daara bi nga xam ne jàngale na alquran ñamu jàngal ñëpp ñooñu di génn ñamu jàngal ñooñu tamit maanaam loolu di wëy yëpp yëpp kon dafay fekk kooku nga xam ni moom moo sosoon daara ji mu ngoog chaîne boobu chaîne bi mayo bu bu mu ci toll rek mhm. maillon boobu ña jariñu jëriñu ca xam-xam boobu dañ ko koy wersel mu toxal waat continuer waat ci beneen xalqa ña jariñu lépp fekk ko macha allah moo xam ñaari ñaari kii la génération la wala ñetti génération wala juróomi génération moom day yéeg rek comme moom ci affaire bi ci moom la déparé woon fu mu yàgg rek ñu wersel ko wàllam. incha allah comme am na yenn xeetu njaay yoo xam ne façon boobu la jaay yi xam naa ne du ñàkk nga xam ko. am na ay matériel yu xam ne gaa ñaa ngi koy jaay. effectivement boo ci jaayee. <laughs> Mm. <laughs> client boo dugal. <laughs> dëgg la xam nga li may wax. ci lu wér ah, macha allah boo bu yéen du ngeen ko nangu yéen Baba macha allah dëgg donc affaire bi noonu la. dëgg la allah kon euh. waqfu lu am njëriñ la. non waqfu dara melul ni moom. dara ni moom docteur Bamba. dara melul ni moom. malheureusement nit ñi ñu bëri xamuñ ko. mais lu jar a xam la. waqfu mooy affaire. Mhm. te damay faral di wax ne. damay faral di wax ne. bu kenn bu kenn na kenn ne ma. li ngay wax ni am na njëriñ waqfu am na njëriñ lool waaye nag. borom alal yi rek ñoo ko man malheureusement man sama maas nga xamee ne amuñ alal mënuñ man la am kay ñëpp man ñëpp a mën a bokk ci waqfu macha allah ñëpp ci mën a bokk ci mën a bokk jàkka ju ñuy tabax mhm. bul wax ne ku amul million rek mun loo mun loo tabax jàkka mhm. boo amul million it fekk nga ku ñuy tabax jàkka jëndal saako si boo amee quatre mille quatre mille wala sa trois mille cinq cent jënd ci saako ciment. saako ciment jënd nañ ko dugalal ci biir jàkka ji. même boo amul quatre mille francs mille franc nga am wala cent franc nga dugal dugalal ci biir. macha allah bokk am bokk nga ci waqfu bi. lu tolloog li ci dugal rek moom dañ la koy wersel macha allah waaw mu ngi mel ni société rek. Mhm. effectivement xam nga société. dul ne benn nit rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy tabax tabax société. dëgg la société en général. ay mbooloo koy bokk ay sociétaire mu ngi noonu ah ku nekk am ay action ku nekk am ay action macha allah di nga ko am dinga am dina am ko am fukki action am ko am ñaar fukki action am ko am lu ko am ko am lu ko yées macha allah kenn ku ne sa action nu mu toll ca société ba rek su bénéfice ba ñëwee loolu nga cay am macha allah loolu mooy waqfu tabax jàkk mu ngi noonu loo ci participer rek ngasum teen noonu la loo ci participer waaw macha allah yéen ñi seen liggéey bi ngeen def nii lu ci waay participer rek contribution am la ci société bi. macha allah bu tiyaabo ja ñëwee da cee da loolu la cee am. macha allah waaw rajo islam yi. Mhm. noonu la école islam yi. même hôpitaux yi dispensaires yi. Mhm. lépp ay waqf la. waaw moo tax waqfu gouvernement yi dañ ko war a encourager parce que seen ndimbal la seen intérêt la. Ah. parce que waqfu bi ña muy jariñ ñooña gouvernement yi ñoo leen war a la ñoo ko waroon def mhm. moo tax gouvernement yi nga xamee ne gouvernement arabe yi mhm. ñoom ñi nga xamee ne xam nañ importance waqfu mhm. te yeewu dañ ko wutal ay ministère amul réewu arabe booy dem presque te amul fa Maroc gii boo demee am na ministère spécial donte ñoom xubuus lañ koy tuddee hmm. wasaratul xubuus xubuus mooy xabs parce que waqfu aussi dafa am ñaari dafa am téere yoo xam ne xubs lañ koy tuddee xubus boo jàngee risaala di nga koo fekk mooy taarif maliki mu ngoog xubus xubus lañ koy wax ci maliki yi ngir mu imaale koy wax mais xubus boobu moog li waqfu bi ñu doon bi ñu wax ñun li ñuy firi benn la parce que xubus mooy loo xam da koy tëj waxuñ fi léegi taxbisul asli ci définition ba da ngay tëj cosaan li ubbi njariñ li mooy xubus rek xubus aussi mooy tëj parce que kii bi nga koy tëj da ngay tëj cosaan li donc benn la boo demee Maroc gii amal nañ ko ministère nga dem Égypte utal nañ ko ministère ñoom wasaratul awqaaf nga dem Kuwait réewu arab yoo dem en général da nga fekk ñu utal ko ñu utal ko lan ministère spécial Sénégal finalement finalement laay wax mhm, mhm, mhm. utalaguñ ko ministère mais heureusement utal nañ ko benn genre département. benn institution institution. Uh-huh. bu ñuy tuddee haute autorité de waqfu. waqfu haute autorité. waaw waaw université yu mag yëpp Azhar. Azhar waqfu la. waqfu la Azhar bi ngay dégg El Azhar ngeen di dégg. bi ñuy dégg Égypte. mu ngoog bi ngeen dégg Égypte. macha allah El Azhar. Mm-hmm. waqfu la te ay waqfu ay awqaaf ñoo koy doxal alalam lépp université bi ci boppam ak yeneen université yi mu tabax Azhar dul ne benn université boobu la am de. Hmm. université boobu mooy bi nekk Égypte ci mooy bi nekk mooy cosaan bi. moo gën a mag mais mbooleem région ya dañoo am ay université yoo xam ne dañ nit ñi dañ ciy jàngee am seen diplôme ñun ñu ngi am fi ay ay professeurs yu jógee Égypte yoo xam ne ñenn ci ñoom Azhar la ñu mais mosuñu dem. Azhar bu bu Caire ba. bu Caire ci ci ci ci ci région yi lañ la ñu amee seen licence. macha allah te Azhar la. te la. noonu ñu amee université noonu la ñu amee dégg nga enseignement primaire. primaire enseignement moyen enseignement secondaire. ci biir région yi Azhar laay wax ba léegi de xaalis boobu foo foog na fa lañ ko jële état bi déedéet du état bi de Azhar état ëpp leen doole. Hmm? déedéet. loolu yëpp ñoo koy financé boo dégg ñu naan Cheikhul dégg nga cheikhul azhar uh-huh. mooy kilifa ki koy jiite boo gisee azhar am autonomie ah parce que financement am ci aw yi lay jógee ko nit ñi ñooy def ay seen alal jël seeni terrain jël seeni kër jël seeni alal jox ko azhar ne ko def nañ ko waqf seetal noo ko jëriñoo loolu azhar al doole ji mu am yëpp gannaaw yàlla foofu la ko jëlee masjidul xaraam. dafa am waqf. dégg nga université yi nekk Égypte ah, fële Tunisie. Tunisie Zaytuna Jaamet Zaytuna ak université bu nekk Maroc ñu ko wax Jaamet Xayrawaan yooyu yëpp dañoo am ay awqaaf. donc donc fu dafa am dafa amal njëriñ. so njëriñam yàlla doo nga ko xam. macha allah macha histoire nag boo dellu woon ci histoire. rôle wi nga xamee ne waqfu yàgg na koy joué ci mhm. société islamique mhm. danañ ci ñëw incha allah joxe ca exemple dana am waqfu yoo xam ne boo ko déggee yow tey tey tey docteur Ba ma nga dégg ko da nga naan kooku lii mhm. lii mën na am lii amoon na fi ci histoire ñun jullit ñi dañoo dellu gannaaw danga naan da nga ñun dellu nañ gannaaw ñun jullit yi ñooñu ñooñu rawoon ci waqfu laa la wax de ay exemple yu yéeme <laughs> allahu akbar te mu ngi suñ kanam incha allah yoo xam ne boo ko gisee da nga naan waaye ñun jullit ji ni ñu delloo gannaaw dafa ëpp ndax yeggoon nañ fii wallahu akbar kon docteur Bamba loolu mooy bu ñaareel mooy xam-xam xam ne dañ koy jëriñoo jëriñoo uh-huh. kooku waqfu la waqfu la uh-huh. mais aussi waladu saalih waladu saalih doom ju kooku waqfu la parce que waq fu aussi comme ni ma la ko waxee mooy bépp jëf joo xam ne da koy jëf te boo dee it mu continuer ñu di la ci versel tiyaaba parce que njëriñam dafay continuer wala saale doom ju baax ci la bokk nit ki bu fekkee dee na bàyyi fi doom yu baax wala doom ju baax mu koy ñaanal mën naa am fekk moom faatu na bu yàgg waaye doom ji mu koy ñaanal njëgal ak yërmande saa yu ko ñaanalee njëgal ak yërmande ñu wersal ko ko ci tiyaabam ne sa doom ja nga bàyyiwoon àdduna diw sàngam moo la ñaanal njëgal moo ñaanal njëgal moo la ñaanal euh, yërmande moom lañ la werseer nii macha allah bari na njëriñ bari na njëriñ lool moo tax jàpp naa ne waqfu mën nañ ko mën na am waqfu boo xam ne dañ koy tuddee waqful waladi saalih waqful walad as-saalih waqfu doom ju baax ci waqfu yi la bokk. macha allah <laughs> waqfu doom ju baax doom ju baax waaw. kon nit mën nga jur sa doom nga yar ko ci yar bu baax yarum l'islam ba pare ni def naa ko waqf fi sabilillah boobu jaratul def def naa ko waqf jarul sa wax jarul wax <laughs> macha allah jarul wax yar nga ko yarum lislaam yàlla tax na jeex na mhm. boo fi jogee ko itam mu lay ñaanal yërmande mhm. ñun ñii ñëpp suñu wayjur suñu wayjur mhm. ku ci xam ne sa jur mu ngi dund yàlla na yàlla gën a dundal yaa koo ci xam ne sa sa wayjur faatu na continuel di ko ñaanal loo ko ñaanal ci yërmande ak bis ak ak ak njëgal saa yoo balaa ngay pare rek versel nañ ko ko ci compte tiyaabo mu fekk ko ci bàmmeelam macha allah rabbi xfir lii wali waliday rabbi rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira macha allah njëgal googu nga ñaanal leen ak yërmande googu nga leen ñaanal suba ak saa yoo ko ñaanee ñu versel leen ko macha allah imaginal waqfu la moom itam la macha loolu mooy ñetti ponk yi nga xam ne. mu ngoog ñetti ponk yi. Mhm. donte tegtal yi nag des na. mais li ma li ma indi nii li ñu indi nii yaakaar naa ne. doy na pour tegtal na pour tegtal. pour tegtal ne waqfu dafa am légitimité dafa am l'islam da ko dafa am base ci l'islam. effectivement alquran da ko saxal sunna yonent bi saa sam saxal ko. macha allah macha allah al imam ci li nga xam ne moom nga ñu indil ci légitimité wala statut buñ ko mënee wax ci waqf mu mel ni buñ déggee li nga wax wax dëgg yàlla dañ naan waqf lu ama ama am njëriñ la lu ama am solo la waaye ñun dañuy laaj ndax julliti xam nañ kon njëriñ loolu xam naa si loolu lañ bëggoon ñëw waaye dañoo ragal ni waxtu wi moo ñu tënk kon xam naa incha allah ci suñu beneen jataay li ñuy njëkkee waxtaan mooy lan mooy njëriñal waqf buñ ko mënee wax maanaam lan mooy xikma bi sagesse bi dëgg dëgg dëgg hmm. mooy lan donte sax am nga loo si junj hmm. mais incha allah pour mu gën a yaatu gën a leer si bopp nit ñi rek dañuy bàyyiwaat incha allah ba suñu beneen jataay euh, di ñaanaat suñu borom li nga xam ne ni moom lañ fi wax mu nangul ñu ko defal ñu ko fil misanil xasanaat kon xam na mbokku téléspectateurs yi dañuy dolli di santaat suñu borom ci xéewal gi nga xam ne moom la ñuy defal saa su nekk muy toog ak ay boroomi xam-xam ñuy taataan si ñoom ay kàddu war leen ko jottali suñu borom nag dogaloon tey ñu toog ak kenn si ñoom mooy al imam Ibrahim Cissé nga xam ni dootul gan ci biir Fafa TV comme niñ leen ko waxee moom mooy directeur mouvement Al Falah pour la culture et l'éducation islamique bi nga xam ne moom moo nekk fii Kaolack ñu koy tuddee centre Aboubacar Siddiq lii lañ leen indiloon kon xam naa dañ bàyyi kilifa gi mu joxe kàddoom gu mujj waaye sànq ci kanam mu ngi wax ni kon euh, ñu ngi ko doon laaj sànq ci li nga xam ni moom mooy ndax nit ki mën na jël alalam dugal ko xëy na fi ñu joxe mooy comme fi ñu nekk fi nga xam ne mooy Fafa TV mu ni man lii kat man maa ko joxe ngir ngeen jënd si matériel wala lu mu ci mënoon exemple yi nga joxe nga xam ni def naa ko waqf mhm. kon euh, ñu ngi leen si ñaax mbokk jullit mbokku mbokk téléspectateur ñu ngi leen di ñaax ngeen ñëw jàpp ci liggéeyu faafa TV bi ndax bari na xëy na ñu ñuy woo peut-être xëy na pour ñu liggéey ak ñoom mais xëy na moyens yi moo ko dul matale kon incha allah ñu ngi woo jullit yëpp ñu ñaw def seen alal fi sabilillah fi nga xam ne moom mooy Fafa kon al mudir ñu ngi lay jox kàddu nga tëjal. waaw ah, mu ngoog euh, alhamdulilah comme niñ ko waxee rek léegi xam na ndax nit xam nañ njëriñam sax wala déet kooku. am na luñ ci junj déjà. macha allah mais bu ñu nee ba ca fin ba. Mm-hmm. chapitre bu mujj ba fa ñuy waxee muskilaatul waqf fi Sénégal la la la la problématique du waqf mhm. ci Sénégal mhm. ah mhm. foofa bokk loolu bokk na ci problème problème yi fii ci rew mooy nit ñi xamuñ ko xamuñ ko effectivement ak nan lañ war a def bañ xam ko bañ xam ko macha allah waaw loolu mu ngi ci suñ kanam incha allah danañ ci ñëw bu neexee euh, donc euh, comme ni nga ko waxee mhm. sagesse bi li ko tax a jog mhm. xikma bi. Mhm. loolu bu ñu fi yàlla indiwaatee beneen yoon. incha allah ñu jublu ci. allah ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yal nañu nangul. nangul leen. amiin eh, te defal ñu ci liggéey bi njëriñ. amiin njëriñal adduna ak njëriñal àllaxira. amiin eh, ñu ngi gërëmaat Fafa TV. ci déplacé wu gi ñu déplacé wu ñëw. Euh, may ñu occasion bi ba ñu mën a def waxtaan bi ak yeneen waxtaan macha allah yal yàlla fay leen fay ñu yàlla dëgëral leen dëgëral ñu yàlla nangul ñu liggéey bi ñun ñëpp amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi daara ju yees joo xam ne yàgg ngeen ko mébét ñu bari ñu ngi jële seeni njaboot bitim réew di leen indi Sénégal ngir ñu jàng alquran te bariwaa na buñ ci amee ay rëccute ci sababu nekkin woo xam ne ñoom duñ ko mën a dékku waaye alhamdulillah tey ubbil nañ leen daara ju bees yoo xam ne ñaar fukki ndongo ak juróom vingt cinq élèves rek lay jël ñoo xam ne dañuy internet wu ba noppi nag fekk fi condition yoo xam ne yu baax a baax la euh, ci wàllu seen nekkin ci wàllu lekk dañ koy dëppaleeg ñoom li ñu miinoon di jëfandiku nikinoon it seen tëdduwaay yi ak seen nekk ni dafay doon loo xam ne lu set la waaye ay néeg yu ñu climatiser en même temps it njàng moo xam ne dafay tegu ci yoon nga xam ne ñi leen di jàngal dañuy nekk ay jàngalekat yu am xarañte ci alquranul karim waaye it ñi leen di encadrer ndax du jàngale rek waaye dañ ci amaale ay programme yoo xam ne éducative la nga xam ne xale bi du ñem ci jàngal ko waaye dañuy yittewoo tamit wàllu yaram kon yar bi ak nekkin bi ak njàng mi lépp dañoo bëgg mu doon loo xam ne luy tegu ci yoon la inna allazina kafaru bizikri lamma jaahum wa innahu la kitaabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم bëgg indi seen njaboot ñu jàng si fii ci Sénégal nekk ci condition boo xam ne bu baax la bu dëppook seeni njaboot li ñu miin alhamdulillah yàlla yombal na ko mën ngeen jokkook numéro yooyu ngeen di gis muy affiché walla ngeen dugg ci site internet alhudanet point com ngeen inscrire incha allah dinañ leen contacter wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. قل ما